bu ma gisoon gaal léegi léegi léegi dama si yéeg wër na yàlla billaay na tenté naa trois fois barki yàlla tenté naa trois fois benn bi dañ ma jàpp. nañ ñu gis ñun jeunes yi sañu taxaw si terrain bi fii agressé am nañ fi dem barki Serigne Touba am nañ fi dem am nañ sañ-sañ bi ndax ay doomu lébu lañ ragaluñ dara yàlla rek leen ragal mais nañ ñu baa ñu liggéey suñu liggéey. di leen tal lañ tëmb si ay 4 heures du matin gis nañ ñoo ngi soog a teer j'espère que 10 heures léegi mu jotee wala waaw kon ñaata temps lañ def si géej tey ñu ñëw fii ci GDPES bu yaraax seet ci nappkat yi nga xamante ne ñoo fi daane seen doole ku ne yaraax dëkk bu napp dëkk la boo xamante ni li ëpp ci askan wi li ñuy dundee ci géej gi lay jóge mu mel ni jamono yu ñu toll ndaw yu baree bari commencé nañoo woon ginnaaw géej gi ana lu ko waral yenn saafara lañ mën a jël pour wattandiku mbir moomule loolu lépp doon ay question yoo xamante ni ñoom àddu nañ ci la dëgg gaay zone interdite yi moo bari si géej gi te ñun géej lañu yaakaar ay doomu lébu lañu tey jii mu yore suñu nga ni doole ba nañ entraîné dem sàcc yi wala ñu agressé wala ñu defi leneen mais ñun géej mooy suñu métier te géej ñi ci jariñu ñoo bari gaay yi ngir yàlla wala suul yi marine nationale ñu bàyyi ñu liggéey buñ demee clandestin ñu jàpp ñu kon tey jii bu ñu ñëwee di mbaal tamit ñu tere ñu ay zone interdite dañuy metti ne dañuy tere lii dañuy tere lii te li ñuy tere fi xam ne mooy Espagne bi ñu jëm tuwaay moom la ñuy mbaal di ko defaree poteton mooy yooyu ñuy tere ñun moom lañ am tey jii àdduna doole yemul quoi bu ñu amoon jógu fil à tourner tax ay fil à tourner. ñun ay jeunesse lañ yoo xam ni jéeg lañ xam bañ juddoo ba léegi suñu baay suñu yaay yëpp jéeg lañ xam ñun ñu dugg ñun ñu judd fekk leen si loolu noonu. géej dafa bëri ay pàcc nag am na fila tourné am na fele-fele am na am na mbaalu yoos kon tey boo taxee sa mbal yos nga war a mbaalu yoos yi fu ñu nekk ñu tere loxo loolu day ñurul leneen quoi fila tourné fu ñu mën a dem ak mbaalu yoos yi fu ñu trois jours a ngi nii gisuñu dara barki yàlla trois jours mu gisuñu dara mais gars yi nekk si TikTok bi di dugal ay vidéo naan géej gi daa am cen daa am mais amul dara barki yàlla dañuy suturu rek deux jours ngay jàpp jën nga toog 4 jours doo am jën billaahi gis nga fi laa tourné ñu dara barki yàlla démb dañoo daw ba ba teer jàppuñ dara wóor na yàlla gisoo seen essence ba a jeex tàkk non géej gi mu amul jën barki yàlla géej gi mu amul jën xam nga bata yi ñoo yàq géej gi xaw ma mais géej gi amul dara dara dara ñu dañu doon tëmb même pas 7 kilomètres jàpp yaway ba fees dañuy yeb ba xaawi billaahi mais léegi bañ nga ñuy gis yaway sax yàgg na wóor na yàlla billaahi bañ gëjee gis yow ay yàgg na même pas 7 kilomètres nga doon dem yow ba fees wala ngay tànn naan jën bii laay jàpp tey wala bii laay jàpp suba. billaahi da ngay romb yaboy doo ko di dem wëti jën bu leer ay sompat wala ay weraw mais léegi géej gi mënatoo gis yaboy billaahi kees yaboy vingt cinq mille lay jar. moom ba tey moom daa mel ni wàññeeku nañ ba tey moom wàññeeku na mais géej gi moo dugalagul jën géej gi moom géej gi amagul jën tabaski après tabaski sax tane na ndax mu ngi fortaatu tuuti tuuti quoi mais moom avant tabaski bi moom neexul woon amul géej gi amul dara dañuy tëmm semaine yàlla duñ naru billaahi duñ gis dara wóor na yàlla xottu gaal la ñuy teeral billaahi moo tax gaal yi gis nga la dañoo seet si kaw demuñu géeg ndax dañoo jaaxle ndax noo tëmb lu tollak nga fere tollak ak deux cent mille trois cent mille nga ñëw doo jàpp dara nga teeral nga teeral xottu gaal billaahi mais ñu nekk si terrain bi euh, di di liggéey ñoom xam nañu moo gi dara doxul ndax pêche artisanale bi euh, maanaam suñu état yi ba léegi bañ tolloo ba léegi amul kenn benn état boo xam ni ñëw nga pour pêche artisanale jëm kanam parce que ñoom xamuñu ko parce que pêche artisanale nekkul théorie pratique la boo ko pratiquewul doo ko xam seen ko nii rek dañuy dem ba si biir mais coono lañ am parce que benn si seeni i mbaal mbaal ñuy liggéey nii ay million lay jar gis gaal yi ay millions lay gaal bu ñuy dem géej ay millions buñ demee duñ sax bu ñuy ñëw sax am loo xam mën na génne ba ñu am si dara mais pêche artisanale bi moom doxul. parce que géej gi jën rek comme ni ko booy di waxee rek comme wute na bu njëkk. njëkkoon neexoon na trop da ngay toog fii fii wallaay asim si gaal yi soob sa caas jàpp jën jàpp sa siwo jën boo ñëwee fii nga koy jaayat amul dem fen da noon toog ay période jëni di teer fii yàlla xam ne ko di teer loolu amatul amatul ko waral mooy napp bu métti rek lu ko waral tamit ak euh, nu ko anam nu koy liggéey daal waaw mais bu nekk gi dafa yaatu ku nekk ak sa métier matière bu nekk la tey mool dafa bari façon am na mool am na filature tourné am na ka nga xamante ne mbaal la yor di mbaal ma ko nga xay napp ma ko nga mbaal la yor tamit di mbaal parce que euh, matière yu bëri woon euh, matière dafa bëri bokk mais liggéey moo bari mais yamuñu ku nekk ak sa métier wala ñun li am muy mbaalu yoos moom la ñu suturloo ñëpp si la ñuy jariñu nit ku nekk ak li ngay jariñu na la si gars yi bàyyi mais fu ñu dugg gars yi bul xatal ñu ter ñu ko nañu fii ak fii dañ koy interdit tey yi xoolal géej société maanaam état la quoi alors état la mais kay ñu xool ñaata ñu si jariñu ma xool ñaata ñu si jariñu ñaar nit ñoo si jariñu gis nga léegi léegi jàpp na ñaari jàpp na jàpp ñaari gaal tey man jàppee si nit ki def si ay valeur deux millions et quelque mu jàppale yóbbu ko du ko doyee dara ah da koy teg fee. loolu bëri na fi de bëri na fi na xam nga rek. yow fii mënoo tëdd di nelaw quoi nga yeew sa yaay bëgg soxla 1000 francs wala 2000 yow doo ko yor billaahi ndax géej gi instant yi neexatul wóor na yàlla loolu moo tax booy di jaar si gaal yi billaahi wóor na yàlla moo tax booy di jaar si gaal di rey seen bopp ndax géej gi instant yi neexul wóor na yàlla billaahi yow fu ngay nappee léegi sax bota yi ñoo fay nappee wóor na yàlla da ngay mbal doo jàpp dara ni ngay dragué suba ba guddi laa lay woon doo gis dara laa doo gis benn jën billaahi loolu moo tax booy di jaar si gaal yi wër na nag géej gi moo neex. jën manqué na fi trop tellement que doo comprendre fii moom jën gëjoon na fi waaw fii tamit te tamit ñu am lu ñuy jàllalewaale te loolu nag peut-être sax tuuti nañ pour di ko wax muy kew yaraax bi yaraax jën mun na fi toog ay moment yàlla du fi dugg mais bu fi duggee ñaar gaal yu mag yi bu ñu ko fi teeralee benn yoon ñaari yoon rek pour yow ay wàccaat day day day yomb quoi te mun nañ toog ba suñu yaay di jooy jën mais bu fi duggee benn yoon ñaari yoon gaal yi jàppandoo ko rek yow bi wàccaat. te loolu bu man du yoon quoi gis nga kon yabooy bi dëgg la yoos bi mooy dem mu nekk yabooy mais yoos bi da yoos bi daa am ay gaal yoo ko war a mbaar à part yabooy bi tamit daa am ay gaal yoo xam ne dañu ko war a mbaar à part kon loolu laa la wax sànq fu gaalu yabooy dem ak fu gaalu yoos di dem bokkul. yow dégguloo ni ma la mbaal ay millions lay jaar gis nii rek nii nii nii nii rek gis nga mbaal nga gis nii borom di dëgg jël dëggatu mbaal mais bu la bu la waxee lu muy jàll non mbaal yi ay Chine lay jógee mbaal yi nga gis ni ay Chine lay jógee ay Corée am na Corée am na Chine am dafa am ñu koy jaay fii biti yaa fi di ko jaay waaw ñun dañuy ñoom ñun ñoo koy transformé def ko mbaal maanaam bu ñuy gis nga kii nii dafa jënd emplacement bi rek léegi moom bu ñëwee moo koy teg réparé ko. defar ko ba mu ndoog mbaan lii nii bétax yi moo ko ciy def bu son yële moo ko ciy def moo koy liggéey daal ba mu nuroog méngoog li muy li muy napp mu dem géej waaw xam nga mbaal mbaal boo mbaal buñ ko sóobee dafa am luy nekk si kaw mooy buson yi mais xam nga bétax day dégg bétax kii mooy wàcce mbaal mooy tax mbaal mi dem suuf appareil bi boo koy seet ba si biir ay ay millions la. te boto dafa garaaw parce que bu ñu déggee boto rek ñu bari xam lu lal si boto parce que boto nu muy nappee ak ñu gaal yu nappee dafa wute boto day manque day manque mën na fekk naa ko jël manque ko mu jeex te fa nga xamante ne tey jii da ngay gis gaal mbaal ñëw na jàppee fii jën suba ñëpp dem fa fekk jël yu dox parce que boto yi la. boo jotee tamit doo ñëw tey bu liggéey sax. ñoom fi ñu nekk sax boo bëggee dëgg boo bëggee dëgg dëgg rek te yàlla tax fu ñu nekk duñ fa àgg mais ñoom dañuy cot jën yi lu war a wàcc ñoom dañ koy dogaale loolu moo tax mu métti. non man moom wax dëgg yàlla moom man sam boobu sax dama bëgg dem. billaay wallaay wa taalaay bu ma gisoon gaal léegi léegi léegi dama si yéeg wóor na yàlla billaay na tenté naa trois fois barki yàlla tenté naa trois fois benn bi dañ ma jàpp waa barñi waa barñi non première fois bi moom joala la quoi waaw suñu benn gaal fii nii ay gendal lañ dañoo paasoon trois cent mille trois cent mille waaw ñu waroon génn quoi Joal loolu gaal googu bari woon na nit de war na mat ay deux cent vingt personne de si benn gaal waaw mais bu jéewuñ dem quoi dañoo échec ndax pol ndax quoi ndax ñoo fa wàcc gaal gi dañoo boole quoi et policiers yi ñoo fa mujjee wàcc waaw troisième fois bi tamit bari ñu la moom tamit gaal goo tamit policier dañ faa wàcc su ma gisoon gaal léegi léegi bu wàccoon fii léegi dama si yéeg billaay wallaay wa taala na yàlla ndax ndax ndax ndax ba may dalee dem géej noonu lay yàggee barki yàlla depuis xale ba léegi maa ngi dem géej mais munu munu ma yor sax trois cent trois cent mille sax munu ma ko denc billaay wallaay trois cent mille munu ma ko denc ñun géej nañ xam te géej gi boo si investir tam doo si gis sa bopp nag géej gi essence neexatul ñu bëri añ nañ seen gaal pour bëgg jaay seen mbësin jaay seen matériel pour bëgg dem Europe billaahi nag géej gi instant yi neexatul billaahi géej gi moom instant yi moom waxul dëgg quoi billaahi moo tax booy bëgg jaar si gaal yi wóor na yàlla billaahi man mii bu ma gisoon gaal léegi léegi dama si yéeg billaahi wóor na yàlla nag géej gi instant yi neexul wóor na yàlla billaahi barki démb ba léegi naruma mi faran aw ma ko mi ngi toog nii billaahi lu ma jotoon da naru moom laay di koccaat di waaw. waaw non dem génn dem génn bi nag ñu bari dañ koo teg si ah ñàkk non man man d'accord ma xam laa gis sénégalais sénégalais ñoo mel noonu maanaam jeune Sénégal yi léegi ku leen bëgg a téye Sénégal da ngay sonn non dafa am benn vie bu ñu dund. ñu ngi fi boo xoolee dafa am benn vie bu ñuy dund vie bi ñuy dund nag moom ñu ko bu njëkk da nga gis xaleel jàngul. nga yóbbu ko mu def mécanicien yóbbu ko mu def maçon yóbbu ko mu def menuisier dem ba am ay diplôme ah mën a tekk man def da xale yi léegi koo si laaj diplôme du la ko wax xale yi taxawaal yëpp kenn amu si diplôme kenn amu si qualification léegi nag yow boo amul qualification bëgg a liggéey fooy jaar ku lay jox liggéey kenn la jox liggéey yow nag euh, yow nag yaa war c'est que ñoo ko def parce que yow sa doom da nga koy tàgg tàggat si bas âge bi maanaam bi muy nekkee xale si nga koy tàggat mu jëm kaw boo ko tàggatee mu jëm kaw métier bu mu àndal daal ndax métier benn bu bu bu xeeb benn métier ndax métier yëpp réussite la mais xale ñu amul métier amuñu métier amuñu qualification ba pare nag bëgg a tekki léegi léegi léegi léegi ñoom xaaruñu fi suba xam nga bu njëkk da nga daan gis ku amee bitigu mbagam di dem ba am bitig dem ba mu togg immeuble boo gisee Dakar gi boo gisee ñi fi nekk yëpp di liggéey ci bitigu mbagam lañ commencé ba dem ba tabax ay étage xale yi fi loolu léegi ñoo xam lu de dañu bëgg a dem léegi tekki léegi te loolu mu nekk léegi nag loolu moo indi voilà léegi nag loo loolu moo indi nag ngay bëgg bay ngay bëgg yenn kii ba mujj gi yow dem rek da nga yaakaar ni Europe mooy Europe moo nekk solution bi te Europe nekk solution bi man xam naa la ñuy daj fee buñ ko dojoon Sénégal gi am dara. soo bëggee dégg dëgg rek moo li ñoo jeex ñoo dem seen yoon parce que dañoo nekk seen géej gis ñu lu leen doy imagine par exemple nga tëmba dem ñëw teel amoon dara booy tëmba jënd essence cinq cent mille wala quatre cent mille si par jour la xoolal par par jour nga dem kilomètre gisoo dara nga ñëw toogaat soo ko defee lundi def ko mardi mercredi boo ko defee jeudi doo dem da ngay càng moo waral boo yëpp jaay seen live ñuy jaay seen moto yi ñuy jaay seen lépp loo wax ñu ne Barça ba Barça waaw booy nee bu newee fee tëdd nelaw sax moo gën seen réew fi ñu nekk nii n'est-ce pas nit dem na sant nit dem na foofu ne du ma sénégalais lu ko waral métti yu dëkk bi. ngay bëgg a jóg bëgg a faj soxla doo ko soxla wala nga yeew sa yaay ne ñaari junne nga ne ko sa yaay xam ne géej nga yaakaar fii ku sa yaay boo amee sa yaay xam ne boo amul sa yaay xam ne si géej lañuy yaakaar du ñu xëy ba na nii ñu xëy nee ñu def yaa ngi gis boo duggee ñu fekk fi lañuy toog bu ñu demul fenn mbaar yi lañuy toog teg seen ataaya toog jàkkaarloo ñun dañoo nekk yoo xam ne liggéey lañ bëgg lañ gën a focus que nekk si si dëkk bi di def naka naka sulul noonu waaw dañoo bëgg liggéey suñu morom yi def waaw jamono yeneen gis jamono nu mu demee dangay gis yenn booy yi ñu dugg si tiktok bi di dagg seen yaram di wax mais ñun taluñu loolu li lañ tal ñun démb lañ tëmb si ay 4 heures matin gis nañ ñoo ngi soog a teer j'espère que 10 heures léegi mu jotee wala waaw kon ñaata temps lañ def si géej gi kon da bëri na booy yoo xam ne ñu ngi si temps bi di def lu leen neex ñun defuñu loolu waaw dañuy ñàkk jëriñu quoi léegi-léegi jàpp na ñaari jàpp war na jàpp ñaari gaal tey man jàppee si nit ki de si ay valeur deux millions et quelque mu jàppale yóbbu ko du ko doyee dara ah da koy teg fee léegi loolu ban sens la am nga yàqal doomu aadama xam nga fu mu jëlee xaalis ba liggéey mbaalam ah ak fu mu ko jëlee ak ñu def ba am ko nga jàpp ko yàqal ko pour lan ñun tey ji président jamaa ñun sëriñ ñoo ko doon xeexal président ñun sëriñ ñoo ko fal ñun dañoo xeex ba sonn ndax président mais président war ñoo gës jamaa war ñu mën a gës ñun sëriñ jamaa na gës ndaw ñi quoi na gës ndaw ñi bu baax a baax dañoo war a gës ndax mu tax ñun ñoo ko fi xeexal xeex nañ guddi xeex nañ bëccëg ngir jamaay mais bu fi toogee gars yi bëgg ne fii zone interdite la fii zone interdite day métti si ñun ñu wax dëgg yàlla tax ñun demuñu ah gars yi nañ ñu xoolaat bu baax nañ ñu gis ñun jeunes yi. ba ma booy sànq nee nañ mbaalu fele-fele ak mbaalu yoos ak mbaalu fila tourné ah ak mbaalu gaalu maare ak gaalu napp yooyu yëpp dafa ute waa ku nekk ak lu ngay napp gis nga bu nekkee mbaalu yoos yi fii ngay mbaalee noonu ni nga jàpp jën bu lay ni nga jàpp sompa ni nga jàpp façon jën bu mag bu ne mën nga ko jàpp. mais lu si ëpp yoos ngay mbaal quoi lu si ëpp yoos ngay mbaal waaw gaalu fele-fele tamit ñoom dañuy ñoom fele-fele ñoom biir géeg nañu seet ñoom biir géeg nañu seet dañuy ñëw rek tàllal seen mbaal toog xaar yàlla toog ñoom yawee dañuy jàpp mais mën nañ jàpp beneen jën mais lu si ëpp ñoom yawee dañuy jàpp ak ah, filaatu ne filaatu ne tamit moom day jàpp façon jën bu ne waaw moom tamit si kaw lay demee géej waaw ñoom si biir géej nañuy ne quoi voilà gaal gaal napp yi tamit ñoom dañuy napp ñoom tamit façon jën bu nee nañuy jàpp façon jën sompat weraw jën bu nee nañuy jàpp waaw ay waraañ lépp waaw différence yi mbaal yi dañoo am différence quoi mbaal bu ne ax lu ngay napp waaw mbaal bu ne af lu ngay demee géej ñii tefes nañuy demee géej ñii am na gaal yoo xamante ne fan yële na ne gaalu maare yi dañuy daw fii ba Mauritanie dañoo am licence Mauritanie dañuy daw ba Mauritanie laa lay wax ni difa fa maaree ndax fii nii géegu Sénégal amatul dara te ay ay jamono ay deux mille ay deux mille dix sept deux mille seize gaal fii nañu loon fii nañ loon demee géej fii nañ loon maaree ñaari sedd nañu am ñetti sedd ñëw teesiwaat yëpp seen kali ba mu fees del billaahi yow jëni ni nga jaay deux jours trois jours ni nga ko jaay ndax doo gis koo ko jaay ndax day lamb ndax jën bu ngay jàpp mooy bari mais léegi gars yi dañuy maari jee bu Mauritanie billaay wallaay wa taalaay Mauritanie. bato yi nag bato yi nag maa laa see wax benn gis nga bato yi d' accord bato yaa ngi si géej gi mais aussi réchauffement climatique baa ngi fi tamit euh, euh, maanaam jën jën yi dafa am réchauffement climatique bu am léegi si àdduna bi boo xam ne tàngaay bi dafa dem ba laal joor gi laal géej bon euh, jënu Sénégal dëkkul Sénégal dafay jaar nii lay def. ay saison lay dem di jàll di dem dem na ba tàngaay bi dem na ba réchauffement climatique bi jën yi daan dund ci sedd si dundatuñ ci parce que tàngaay moo ëpp loolu bokk na li ko yàq ñaareel ba tamit ñun suñu géej yi niñ koy jaayee moo baaxul ndax boo fekkee da am géej te dëkk bi te dëkk bi neexul da ngay yaxanal mais boo ko yaxanul rek ça suñ suñu baas yu ñuy sol sax baas yu ñuy demee géej sax billaay essence yi quatre-vingt mille lay jar ba ay quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-dix mille te xam nga ñaar la doon jar ay soixante soixante-quinze mille la jar léegi yokku na dem na ba ay kat ay. nañu bu ñuy liggéey moom nañu sol na baas yooyu boo ko solee doo tooy quoi ba pare tey bu doon taw nii doo tooy waaw doo tooy boo bu seddaay sax seddaay bu amoon nii sax munul téye sedd de mais boo tegee ay yére nii dina la téye. voilà non géej moom amul loolu waaw géej moom boo teeree moom sa keesu jën ngay teg comme ça tey kii wala fayoon dix mille kee fay la quinze mille yow ku loo fay quinze mille moom nga koy dem jaay waaw mais gaal yi am na gaal yoo xamante ne moom mareyeur yi comme ça ñoom dañ lay yor comme ça tey ñoom boo pertoon essance quoi ñoom dañuy ñëw jox la jox la essence tey boo soxlaan buum dañuy ñëw jindal la buum mais boo jàppee jën comme ça jënd bu waroon ja dix mille ñoom sept mille lañ koy jëndee wala huit mille voilà dañ leen koy wàññi pour moom ñu mën si am dara mais géej boo am jafe-jafe boo am ñoom moom nañ si dugal seen loxo dañ la jàppale. foog ñu jëli koo xam ne mu ngi liggéey océanographie pour dugal pour mu pour mu génne leen su fekkoon ne nag dañu amoon gàllankoor loolu yëpp dana leen fi ndax na ngay gis bato boo xam ne ay bato yoo xam ne du ñu am licence Sénégal licence Bissau la ñu ñooñu dañuy dem Bissau wala Cap Vert léegi bu ñu xoolee diggante bi kii war a ñu wàcc dañuy xam heure bi marine bay génn ak dañ koy xam su ko defee ñu def li ñuy def ba pare balaa marine bay jóg am na ñu leen nekkal fii am na ñu leen nekkal fii ñooñu bu marine bi di départ ñooñu ñoo leen di woo ne leen bi jóg na su ko defee ñoom ñu un seen baal génn zone Sénégal comprendre nga léegi loolu nag pour nga def ko dafa am ñoo xam ne si géej lañ doon yenn waroon yendu fanaan waaw ko déet dafa am ñoo xam ni spécialement loolu mooy seen liggéey ñu toog kooku moom mën na ne c'est que ñii nag am nañu volonté liggéey maanaam euh, def lu ba mais il faut ñu teey jaarale ko foo xam ni il ñu am lu ñu teg. la laay ñaan jamaay na ñu wàññi lekk waaw essence bi. xam nga jëm ñu wàññil bato yi quoi na instant yi bato yi moom wàññi jeexal lañ jën yëpp barki yàlla jën yëpp jeexal lañ ko wër na yàlla ba ba pare marine euh, bato yi moom dëgg yàlla moom bato yi moom sonal nañ ñu quoi na bato yi boo xoolee am na si yenn biir yu ngay nekk quoi yow da ngay ragal sax nelaw ndax booy nelaw bato yi naan la tëdd ray la te foofu noonu foofu bu ñu la mbëkkee doo mucc ndax amoo amoo gaal dimbali ndax lu toll ak nga nekk fa seer fa sa ah yow yaag asamaan ak yàlla kase fa ne yaag géej gi kase billaahi yow ñoom ñoo lay tiim yow gaal bu la fa lii bato bu la fa mbëkkee yow doo am lu la dimbal doo am foo jafanu yow doo am la ngay mujjee dee billaahi te boo tey dañuy ñëw yàqal la sax di la saaga tubaab bi da nga ñuy yàqal sax di saaga billaahi te te boo tey lu si ëpp ay nit yu ñuul ñoo siy liggéey ay sénégalais ñoo siy liggéey te senegal yi ñoom ñoo lay yàqal. mais nañu bàyyi ñu liggéey suñu liggéey nañu bàyyi ñu firi ñu mën a liggéey. sinon tey jii dañuy def leneen leneen lu neexul yàlla nañ ñu bàyyi ñu liggéey marine nationale bi gars yi ñu teg lu ñu bëgg a tëral rek maa ñu tëral mënul nekk yoos bii moom la ñuy jariñu si la ñuy suturaalu si la ñuy lekk si la ñuy naan si la ñuy yar bañ màgg ba toll nii nañ ñu bàyyi ñu liggéey nañ ñu bàyyi ñu liggéey loolu wasalaam. waaye jeexul affaire bi moom yoonu ndaw moom du jeex nit ki moom ah, bu yàlla natoo rek sa am moom fu nekk di koy jëli soit Sénégal soit Europe soit feneen ak feneen mais ñu ay ndaw leen rek day sabadu rek n'est-ce am na ñu jàpp maanaam mbaal yi ñi koy jaay ay privé lañu nga privé moom bu ñëwee jënd bu doon état la daa ko song ne ko wàññi nangam nang mais pour nga wàññi privé da ngay ñaan état bi rek mu dimbali ñu wàññi tax wàññi ñi nga xam ñooy indi mbaal ñu wàññi taxi yi suñu wàññee taxi yi mu yomb suñu comprendre ndax il faut il faut ñu wàññi taxi yi ñooñu mën ko jël ñoom it wàññi ñi koy jaay ay privé lañu loolu rek moo mën a tax ñu jàppale ñu si côté boobu wàññi taxi yenn taxi yow mi nekk privé su ko wàññee yow mi nekk privé di jaay daa wàññi di di nga mën a gis sa bopp mais bu fekkee yow privé bi mënut a jëndee ñaar fukk jaay fukki dërëm comprendre loolu rek moo tax affaire yi seer. muy tubaab di jégaluwaat si kàddu yi bu baax a baax yu ñu yëkkati waaw bu dëngee rek suñu jëm yi la bu jubee ñu santee ko yàlla bu baax baax yaa ngeen jëf waay leen ñaanal jàmm seen télé bi yàlla yàlla jëm kanam te ngeen kon ne moom liggéey rek bu ñu liggéey rek réussir waaw adduna moom bu kenn toog nu ñëpp liggéey waaw ñun non ñun ñun moom ñun ñun moom xool 24 heures sur 24 dañ koy liggéey bu ñu keere dañuy dañuy noppal ñoo ngi leen di gërëm di ngeen def rafet na trop lii mooy Sénégal waaw defee boo génnee daa ngeen xam ñeene daañu xam du voilà waaw loolu loolu mooy yoon ngeen def baax na rafet na yàlla jàppale rek yàlla rek di jaan ñëpp waaw xam ñun moom mënuñu tudd te duñu du yaraax parce que yaraax ji la ñu am parce que bariwul sax pakkuus bu ndaw la ñu mais ñoo gëm seen bopp wallaahi si lépp nag ku lébu rek xam ne lébu ñu bokk ndey ñu bokk bàyyi boo laalee kii rek laal nga kële waaw. non man moom agent yi moom waaw maa leen sant di leen gërëm quoi na li ngeen def ni yombul quoi. waaw lu ngeen def ni moom yomb ñu leen sant leen gërëm waaw waaw am leen jàmm rek waaw. jër ngeen jëf mbokk yi acca mu ngi noonu jëngeen ngeen kàddu yi nga xamante ni jot na fee rote ñenn si yi nga xamante ni ñooy yëngatu si wàllum napp gi. muy kàddu yoo xamante ni kàddu euh, ñaxtu la lañ ko mën a lañ ko mën a tuddee kàddu yoo xamante ni kàddu mbébét la kàddu ñaan la jëmale ko si ñi nga xamante ni ñoo nekk suñu autorité yi. gis nañ jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom tamit wax nañ ko bari na lool bokk na si ay kàddu yoo xamante ne ñoom wax nañ ko yor nañ seen doole am nañ seen xel mënoon nañoo génn def nii ñenn ñi di def muy agressé mais defuñu ko dañoo opté toog liggéeyal seen dëkk demuñu bitim réew lépp loo xamante ne am nañ ko rek si biir réew mi lañ ko bëgg jëfandikoo kon kon boog bu ñu amee ndaw yoo xamante ni am nañ esprit boobu am xalaat boobu mën nañoo na am espoir bu ñu leen jàppalee. ñu jëm doxal seen réew affaire yi métti na lool yaa ngi gis euh, pas bi nga xamante ni jël nañ ko kàddu yu am solo yoo xamante ni yëkkat nañ ko mag la euh, boo doon estimer ay atam dina àgg si ay soixante ay quelque ans parce que toogul kër ga di xaar dafa génn fii di di liggéey di daan dooleem loolee nag exemple la boo xamante ni képp kuy ndaw war nga ko war nga see roy ñu xam ni euh, liggéey ñëpp la war moo xam parce keroog président ba mu génnee dafa wax ñetti catégorie personne moo am am na ñoo xamante ni dañoo am seen diplôme jàng di wut liggéey am ñoo xamante ni seen xel lañ am ak seen xam-xam di wut liggéey am na ñoo xamante ni tamit doole kese lañ am amuñu xel amuñu dara foofu nag la problème bi nekkee bu fekkee da nga am sa doole amoo benn diplôme amoo xel amoo dara pour ñu jàppale nga liggéey dafay dafay xaw a jafe loolu kon boobu képp koo xamante ni ndaw nga rek ngaa dem sàkku ji xam-xam pour bu ñu lay jàppale mu nekk jàppale goo xamante ni mérité nga ko kon book mbokk yi loolu nag moom lañ leen indiloon dinañ amaat yeneen euh, siqaat yeneen jotaay jëmale ko si yeneen secteur moo xam si wàllum mbay mi la moo xam si beneen wàll bu mën a doon ñun yéen lañ fi nekkal lépp loo xamante ni sàkku ngeen ko si ñun rek incha allah dinañ si jéem a xar siñ tànk tubéy kon boog ñoo leen di jox di ja ba beneen incha allah. fii seen télévision ma faatul Bichri ak yeneen i reportage jaa ngeen jëf